Euh, parce que dafa waroon a euh, enregistré ki nga xamante ni moom moo di Diomaye fay mais finalement denn euh, heure bi ñu ko bi mu waroon a enregistré jàll na mais bàyyiwuñu ko mu dugg donc finalement Diomaye kon du mën a def li nga xamante ni moom moo di ci premier jour bi du am temps d'antenne pour maanaam pour wax ak Sénégalais yi parce que Amadou Ba ñi nga xamante ni moom moo di mandataire am moo waroon a wax à sa place comme comme euh, loi bi dafa wax ni candidat bi moom moo war a moo war a génn wax mm. peut-être que looloo tax ñu euh, ñu bloqué ko au niveau euh, de la porte noo jàggante situation boobu tamit. Mahfouz nañ leen ko may. Amadou Ba. Mm. bu mu xuloo bu mu xeex bu mu wax ak benn vigile RTS lan la lan mooy RTS. Mm-hmm. dama la wax benn affaire. gis nga bu ñu commencé diffuser vidéo yi euh, ni ki suba. Hmm. nga dem xoole ci chaîne RTS nombre ñaata ñoo koy seetaan nombre de vues yooyu peut sax li may moo tax dina xaw am benn doole bi ñu. Hmm. nga dem seetaan ji RTS yan vidéo la seetaan ak ñan lañ gën a seetaan. nga jóge fa dem ci benn live boo xamante ne Sunugal 24 def na ko ak quelques chaînes yoo xam ne lancé nañ ko xool ñaata ñaata nit. lan hmm. la laal ci àddina bi ak ñaat nit ñoo ko seetaan hmm. lan lañ soxla visibilité lañ soxla hmm. léegi tey sa téléphone bii nga yor nii am na koo xamante ne mi ngi mi ngi mi diggante Sénégal ak Gambie ba Gambie da nga dem daje ak nit mu naan la Moustapha dama lay suivre di la di je prends à témoin ba ma ànd ak moom dem nga bourse bi un ñëw taxaw dañ leen seetaan kooku nekkul Sénégal donc kon pour pour pour man fi toll nii on n'a pas besoin nga nekk nga a a parce que ñoom ñoo ñee nekk RTS yëpp seen pexe bu antoon tey jii ku taq ci Pastef sax du teg sa tànkam buntu biir RTS. Mhm. RTS kañ lañ mës a ubbi seen buntu waa waa waa Pastef dugg fa Ousmane Sonko tey jii moom lañ gën a suivre. Mhm. est-ce que teg na tànkam RTS. Mm. conférence de presse RTS daf koy génne mos mm. nga leen gis bu euh, conférence de presse yeewi askan wi sax laa de façon générale mm-hmm. mm-hmm. yeewi askan wi seen conférence de presse ban moo toog mu passé inaperçu mm-hmm. chaque jour bu ñu xëyee quotidien yi duñ ci wax rajo yi duñ ko relayer seen édition yi duñ ci def édition spéciale di ci wax est dana génn RTS du génn RTS nañ leen ba ak seen RTS ñu def seen ay caravane def seen i ay live hmm. liggéey ak chaîne internet yi hmm. wut si ay partenariat ak seen i plateforme ak seen i ay plateforme jàllale ko wasaare ko information bi jàll na si fii hmm. nag duma leen ko bàyyi loolu la mais mais bu fekkente ne la ko loo ci mën doo fa nekk di xuloo sama alal moomoo ko dañ la ko dénk alalu askan wi seen national nga jël ko yow moomale ko benn waay RTS ñëpp ko bokk alali réew ma sa ñaq sama ñaq moomuñu ko jël ko dugal ko ci seen poste lu mel noonu nag moo tax ñu bëgg élection am ñu jëli fi loolu tëggat réew mi RTS kenn ku ne jël fa sa cër gis ci sa bopp yow ma hmm. mënuñu ko bokk ngay jël sama cër dama koy bo le sëñ Cheikh dama dama ko fokkati dama koy bokkati loolu mooy lan RTS ñëpp ko bokk ñu jël ko affaire na sama yaram a ngi bëgg tàng sax sëñ bi sama yaram a ngi tàng réew mi li fi ne du du dëgg du yoon maa Abdou daan na ko li ma neex ak ki ma neex dëkk kër goo ko yoram mu tas rawatina am réew. li ma neex ak ki ma neex. waaw loo réew moo ko yoram kër waxuma la ak am réew. Mhm. RTS looloo fay daw li ma neex ak ki ma neex. xooli liggéeykat ya fa nekkoon ana ñoom Abbas. Mhm. ana ñoom Ismaïla. Mhm. kenn gisatu leen. fi nga leen di joxoñ loolu lañ nangu di xool di ay góor di gar nga tëbal leen d' accord nañu waxante dëgg waay. te te ñëpp ko bokk ñëpp a seen national la. RTS suñ suñ impôt ko téye suñu impôt bokkul ak fii nga xam ne ñàkku jàmburoo ko wut ah. privé. Mm-hmm. wut ko dugal fi ay nit kooku bu mm-hmm. ko neex lu ko neex na ko doxale waaye RTS ñu moom ko gëj la am assemblée nationale ñu koy ñu koy wate muy alali réew mi. Mm-hmm. ngay am koy koy fat ak koo dul fat jumaay am na droit de def fa émission dem jël ko wala ñu fekk ko ca kaso ba jël ko. jël ko waaw. te waa Pastef yi sax ñoom ñoom nañ moom laa la wax ñu ne ko kat sëñ bi ñëw waxtu sàngam enregistré mu wut yére bu baax sol mu wax li muy wax waaw mu toog waaye na waa jël ko ci benn forme waa Pastef xam nga ñoom lu ñu wax nee nañ buñ ko génne nañ dem campagne ñu campagnal ko mhm. ndax nañ ko bàyyi ca kaso ba nee nañ ci lay gën a neex xam nga fi ne nii nee na ñoom ñee nee nañ ci waaw waa Pastef nee na ci la duma yi gën a neex bu ñu ko bàyyee ca kaso ba buñ duma leen ba pare ñu génnee ko fa mu dem def passation nee na loolu lañ a dañ bañ a euh, génne muy campagne bëgguñu ñu koy génne muy campagne ñoom loolu la wax waaye léegi nag kon temps de temps de antenne duñ ko jox mandataire am moo hmm. waxal ko wax dëgg yàlla waaye ni mu ñëw nga ne du dugg maanaam ban réew au nom de quoi ban réew lañ ne maa ngi wax français sax te tey moom au nom de quoi lu tax war a wax français. au de quoi non anglais bi anglais bi laa gën a dégg moo tax. au nom de quoi. Hmm. Hmm. d' accord euh, agsi nañu ci cappaandaw ji ah. <laughs> ah. sëñ bi tàngal bi sëñ bi tàng de ah. ah. sëñ bi tàng de mais mais mais bugaan bugaan fi jar na de. waaw fan yi moom yow Khalifa Sall Anta Babacar Basti Basirou. Euh, euh, Serigne Mboup Serigne Mboup ñëpp a ngi démarché ñëpp a ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi eh, maanaam ñu ngi kii. ñu ngi koy dragué nan laa koy mën a waxee sax ñu ngi koy dragué. ñu ngi dragué ki nga xamante ni moom ah buga non bugaan nag. bugaan nag bugaan nag ku ko am ci sa wet. Mm-hmm. ak maanaam engagement bi mu am moyens yi mu am. ku ko am sa wet doo doo wax dara. léegi bu ko nit ñi seete pour élection yi am mu taxaw fee Mamadou Bara Dolly naan élection dañ ko war a dàq. loolu mooy euh, euh, républicain. wax ba ba ko wax bugaan na dañ ko dàq. non li mu ci wax leerul de. Bougane waxul nañu koy dàq de. mu ngi noonu li dana war a leerul li mu ci wax leerul daal. moom Bara Dolly démb seen point de presse ak ak ñoom euh, Mamadou Diop. dégg li ñu ci wax leerul moom. leerul nit da ngaa war a wax lu leer. nañ def élection yi wala nañ nañ ubbi ñu bokk. déggu li ma la wax en tout cas nanguñu tranché débat non non déglu ah. bu baax li ma lay wax ne déglu bu baax li ma lay wax. ñoom seen kuréel ga bañ ko soxee ñoom Mimi Touré jël nañ jël nañ jël nañ jël nañ seen i responsabilité dem wut fuñ kuñ àndal. Hmm. nee na élection yi am waaye moom Bara Dolly ak moom ak kii Mamadou Diop de seen point de presse léegi lu ñuy wax déggoo ñu naan nañ dàq élection yi. Baara Doli wax waxu ko fa. waaw nañ dàq élection yi. wax taxaw fii naan eh, eh, eh, li mu wax ensemble déggoo ko. Mm-hmm. ci Karim yow yaa ngi yor yaa ngi yor candidat défendre sa candidat waroo doon candidat Karim yor candidat nga taxaw naan Karim ku ko. ku bañ da nga bañ ko bañ da nga bañ sëñ Touba. Senghor nekku fi woon sëñ Babacar si ne fi sëñ ne fi Senghor nekkul nekkul ab jullit di jiiti maanaam maanaam maanaam déclaration yooyu mel ni ku amul benn ku amul xalaat wala yow doo xalaat wala yow nekkoo Sénégal wala yow nit balaa ngaa wax da war a am ay conseils yu baax lii laa war a wax ñu xoola tegal la li nga war a wax waaye am na wax yoo xam ne du du jukkuy pusa te yow da ngay wutum réew nga ne doomu sëriñ mhm. war a taxaw ci assemblée national nga naan euh, Karim dañ ko bañ Sëñ Tuubaa tax ñu bañ ko mhm. loolu est-ce que waxu kilifa la damay laaj rek. maanaam dafa am communication yoo xam ne ku ñuy séntu ci diine wala ñu naan waroo koo wax ab jaay sax waru su ko wax. Mm-hmm. balaa nga commencé woon na waxoon na ko ci benn télé. ba ba gars yi eh, jàkkaarloo ba gars yi di ko man jàpp naa ne fa la ko yem laay di man ba ah, am pencum ndaw réew ma yow nga bëgg ne képp ko dañoo bañ kërim suñ Tuubaa tax ñu bañ ko kërim day doomu sëñ Tuubaa wala day lan. bu doon koo xam ne dangaa laal ci sëñ tubaa sax ne fa ñu bëgg laa kan nga tax nga nga mën a nga mën a wax loolu mu xaw a tane waaye ku tëdd duwaa cinq ans yow nga am sab candidat défendre sab candidat sol boobu robb avocat ngir lan nekk ci euh, deal politique boobu nan nañ dàq élection yi xëy na bëggoon ngaa doon candidat bëggoon doon candidat ah dafa am ñoo xam ne dañoo dem ñu kale leen liñ leen kale leen la seen kër lañ tëdd yor seen xaalis di jënde parrainage mm-hmm. parrainage daa doon lu sérieux comme ni ma ko doon wutee dem ci askan yi iri leen waxtaan ñoo wax leen sa programme ñu jox la teyu bakkan nga enregistré. Mhm. waaye yow toog sa kër benn waay bu nekk Sénégalais lambda dajale ay photocopie ngay enregistré dem ñu dàqale nga nga bëgg ko sippi nit ñi. nga di sonal nit au nom de quoi vraiment. <laughs> tey boobu ñu indi ah. <laughs> mais mais ma ma ko sëñ bi ñëwal ci ñëwal li ma li ma bëggoon a wax ci ci ci mm. Bougane mooy xam nga fi ñu tool nii toll na foo xamante ne. Mm-hmm. daa waroon a leeral la warul ne fi naan nañ dàq élection yi Bougane daa war a féete bu dee réew mee ko ñor bu dee réew mee ko ñor waaye bu naan mu ngi dàq élection yi saa wa dékk réew ma ma ma dafa am ñoo xam ne ni dañoo làqoo ci eh, eh, deru la ay bukki yi sàngoo waaw seen mbir leerul waaw ah, ah, dañoo nekk ci kenn xamuñ fu ñu féete ñooñu ne dañoo askan wi laa ci intervenir nañ ci def attention mm-hmm. ñoo xam ne seen dara leerul xam nañ li askan yu bëgg bugaan moo la gën a xam ne askan yu bëgg ak askan yu féete la dem féete ak ñoom bu bëggee am ndam waaye Sénégal yi bu la say mbir leeree dañ lay ba de mm-hmm. ñii fi ne di deal politique yi Sénégal yi dañ leen a ba mm-hmm. fi fi ne lu leer ngay def di wax Sénégal yi dëgg di dox bëccëg di leen wax dëgg fi nga jëm nga signalé ko mu leer nañ boo ko defee sénégalais ànd ak boo ko defee sénégalais bi ne nit lañ dañoo yeewu. ku fi boo fi yore sabti la yor fi lépp sénégalais télé ci poos lañ yor fi mu ne nii gis nga ni réseaux sociaux yi Sonko ak Pastef fu ñu ñoo leen fa yeggal te tëddu télé yii. ndax télé yii ñañ fay teg ay mercenaires yu bari bu ñu xëyee xas Sonko lañ fa nekk est-ce que tax na nit nit ñi amuñu jot ñu ci bëri seetaan télé. gis nga réseaux sociaux yii live fii mm. waa Pastef lu ñu réagir ci ci lañ ko réalisé. ku ko yor sa télé yor sa rajo wala yor sa yor sa mercenaire jàpp ne yow mën ngaa wax lu dugg ci boppi askan yi da leen di ndax man chaque jour maa ngi yee askan yi di tenir samay conférence di yee nit ñi ne leen nii ngeen war a mel ab jullit gëm leen seen réew mhm. d'accord merci ah, merci sëñ sëñ sëñ bi tey am na solo de kaddu kaddu gi am na solo daa indi jinne yi tey ah. waaw waaw mais xam nga xam nga man dama ne fi mu toll nii ku fa toll woon même am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi leen di seet si mhm. a mais il faut que ma def attention. parce que situation bi mu nekk nii dafa yaakaar ne tey ji tey diw ñëw na seet si la diw ñëw seet si la diw ñëw seet si la da nga yaakaar ne tey ji yaay faiseur de roi. boo mhm. àndaloo du gagné or loolu amul amul fenn fu ñu bind bugaan bu àndaluk diw diw du gagné wala bugaan bu ànd diw diw du gagné. Hmm. dafa am lu ñu yaakaaree ci moom mooy benn benn notoriété bu mu am benn siiw bu mu am ak ay moyens yu mu am am ak ay nit yoo xam ne jàpp nañ ne mi ngi ci ginnaawam. Hmm. ñu jàpp ne boo ñëwee dooleel sama coalition mën nañ yegg fenn fi moo waral ku nekk ñëw di ko seet si mais dafa am loo xamante ne mooy parcours am jaar-jaaram mu wane ko yaa ngi koy wax léegi mii lu am solo dañu hmm. toll si jamono joo xamante ne nan mooy tuddee syndrome wala bukki bi mattoon Idrissa Seck matt ko. maanaam nga toll foo xam ne am nga benn aura nit ñi wóolu nañ la am na fu ñu la teg ngay def nii naan nii xoolal mu toog ne dama samedi daanaa wax ku may àndal. Mm. tey mu carte wax jaxasoo nga jóg ne noonu ah, ah. du ma wax léegi léegi dàq naa ko maa mm. ngi doxaloo tax sax dàpp mm. loolu pour man c'est très dangereux kaddu leader daf ci war a bàyyi xel su ma ne damay wax samedi moo xam union européenne mooy ñëw seet sama ku nekk naa ñëw sax parce que dina dem soutenir di ji nit mais du safe mm-hmm. maanaam day na dem ba o finish mu dem jàpp ni dana ah buggaa ñëw na waaye ah ax la ñuy wax ci ay calcul la nekk ci ay calcul la nekk parce que dañuy foog na fi ñu toll lu mu tëju nii ay calcul la mm. te su boobaa keneen ku mënta jàppale tamit bëtu euh, koo xamante ni dafa ñëw di calculer da koy jàppee mm. su boobaa jàppale ba du fa safee mm-hmm. na moytu tamit li ma ko doon waxee léegi daal Idrissa Seck daal ko maanaam nekk fi di def nii gauche droite di jouer ay calcul yu bëri yooyu ba nit ñi jàppale koo xam ne da leen bëgg a dox seen maayin bu ñu demee ba am benn idée ne Bougane dafa bëgg a dox suñu mu liggéeyoon mm. te loolu li mooy mooy benn cohérence ak logique si démarche am maanaam nga bëgg ko wala nga bañ ko Ousmane Sonko lu mu am tey jii foncé fenn moo ko may